ci biir nga xeex ko ci biir man dañ may yónni rek buñ ma nee defal lii ma def lii suñ ma nee defal lii ma def la d'accord mais il faut savoir quelque chose Khalil mooy lan pour terminer da la ne le premier ministre Ousmane Sonko oui il a il a un mooy premier ministre mooy agenda mille cinquante. il a de la République. il a il a un loolu mooy objectif. waaw waaw même le premier ministre. président du Pastef il a un agenda politique. waaw yow te gis-gis la nangul ma la du ma gis. waaw donc du ma la merci. te am na ci droit. parce que c'est un homme politique. waaw c'est pourquoi te bëgg nañ. waaw d'accord bu fi Bassirou Diomaye Faye jugee. waaw waaw mais ma rejoué. c'est pourquoi. suñ paree jàmm waaw mais ma waaw ma aussi waaw waaw mais ma ma daaneel. c'est pourquoi moom mu jël téléphone am ñooñu nga tuddee ay transhumants mu woo ñan lañ tuddee transhumants fii transhumants amagu fi nee naa la dañoo ñëw soutenir ah, man vraiment am nga am nga ci élection législative yi parce que moom nanguwul na ñooñu ay élection yi jeex na nga ah, maintenant nañ xool xam nga Sénégal la xam nga la mu garaaw xam nga la mu garaaw lu ma gëm mënuñu nax sénégalais yi de non xam non si la manipulation boobu moo deex yow nit nit nekkoon benn ñëw jàppale leen ngeen bëgg a jël transhumance boobu temps Macky ngeen bëgg ne ko léegi soutien la quoi du transhumance c'est par rapport à un objectif qui ah sénégalais on nous a soutenu sénégalais d'accord les sénégalais boo jugé xam nga man su ma doon gaay sax man personnellement. gaayal euh, euh, ñi ñëw pour soutenir. waaw waaw man de boo ma beddee saa ma dem sama yoon. boo ma beddee c'est-à-dire man su par exemple su ma nekkoon ci opposition. waaw Ousmane Sonko wax li mu wax. waaw mais mais mais c'est la législative bi c'est la fait. ñu am yaa ngi dégg ñu am fula am fula. la ñu am fula ah, ils ont créé leur propre liste. Ousmane Euh, non parce waaw moom moo ko wax man jow moom jomaay. si ki la doone xam nga nit. soo ah, jëlee benn décision ah, non mais quand même. tu parles avec des responsables. da nga leen wax lu mën a dugg seen bopp. c'est quoi. c'est ce que Ousmane Sonko nous a dit. ce qu'il a dit. il nous a convoqués. Mhm. on a parlé ensemble. mu jox ñu ay raisons am. Mhm. la majorité ont accepté cela. Okay. Wow. bu fekkee ni. Mhm. y a certains ñu am ay frustrations. non pas frustration ce qui est normal et je les comprends te nee naa la bu ñu demee assemblée di ngeen xam ne. non non non non non non non il ne faut pas manipuler. yow da ngeen man dama lay wax li ma gëm. non yow da nga nekkuma ci ay manipulation si si. Ousmane Sonko a dit non je vous assure que nekkuma ci ay manipulation il n'a pas dit ça. qu'est-ce qu'il a dit Ousmane Sonko n'a pas dit. qu'est-ce qu'il a dit Ousmane Sonko su ne woon. waaw keroog wallahi azim su ne woon. waaw basi euh, coalition Diomaye Faye. waaw soxlaatuma leen. demal leen seen bopp. waaw man perso. Ah, mais c'est que laa di damay génn waaw loolu la wax waaw léegi lan la wax kon. il n'a pas dit cela. waaw ah, léegi c'est que laa di. gis nga nu. waaw lan la wax on a pris dañu am benn en. waaw non moom lan la wax xam nga ñu man saa yi man kenn du ma kenn du ma ñàkkal fayda. waaw mais c'est que laa dara nag je ne représente peut-être rien mais am na yoo xam ne on l'accepte pas. non moo tax tayiru génn yaa ngi dégg bu ko waxoon. nee naa la ñun dañuy teel a génn parce que am nañu. waxu ko mais dans les faits. am na ñoo xam ne noonu lañ ko interprété. ah mais moo am. xam nga dans les faits. moo am y a des gens qui l'ont interprété comme ça. mais mais man je me dis ah. nous nous sommes battus pour une chose pour un Sénégal souverain juste et prospère. Mhm. ci loolu lañ sukkandiku. ba ñuy jàppale le président Bassirou jomaay fay dañ ko jàppale par rapport ak benn programme bu mu proposé Sénégalais yi ñëpp adhéré ci ñu gis ni lii buñ ko doxalee vraiment dina jëmale réew mi ci kanam ñu accepté ko à cent pour cent. Mhm. on nous a élus pour un mandat de cinq ans man sama raisonnement bu logique. Mhm. ba ñu gañee élection yi. le président de la république ñun la njëkk a recevoir même avant muy recevoir même le parti Pastef. Diomaye parce que il faut pas oublier du ma sax ne parti Pastef parce que Ousmane Sonko en tant que président du du parti Pastef mu ngi ci biir. Diomaye président coalition Diomaye donc mu ñun ñëpp. Euh, wax na li muy wax remercier ne bëgg nañu gunge ko. Hmm. vraiment durant son mandat. d'accord noonu. te pour man lu yoon la. Hmm. parce qu'on s'est battu pour am benn mandat cinq ans par rapport ak un programme. beneen bi Ousmane Sonko en tant que premier ministre ba mu ñëwee jour boobu dafa ne kat moom bu señoon buggul ni Macky Sall keroog bu muy génnee pale nit ñi di ko yooxoo gisul kenn mu wéet fa loolu buggul vraiment tey bu ñu demoon ba Bassirou Diomaye pare ay mandaawam di génnee noonu palais bëgg na gis ñoo xam ne nii vraiment dinañ ko défendre dinañ ko jàppale ci liggéey bi on a prix l'engagement dem ci loolu noonu yaa ngi dégg donc looloo tax ñu accepté ko maintenant suñ demee ay élections législatives Ousmane Sonko ñëw ne ah man kat li ma gis mooy. Euh, Pastef. waaw en tant que parti politique. Mm -hmm. va aller aux élections législatives. Oui. mais lu tax ma koy def. Mhm. mooy il faut que ñu sécuriser. waaw maanaam sunuy député. d'accord député yi. d'accord il faut que ñu sécuriser leen. Mhm. ba nga xam ne tey jii. parce que loi moo ko tëddal ne tey bu la liste. Euh, investir nga quitté liste boobu da ngay perte sa mandat député alors que su fekkee ci dans le cadre de la coalition. munta ne alors que liggéey bi dañ ci teg suñu bakkan bi. non attends duñ ko salfaañee. Ah. moo tax ñu bëgg ko sécuriser noonu nga xam ne même bu ëllëgee. Mhm. kenn du tëb tëb rek génn noonu bëgg ñu yàqal suñu liggéey. Mhm. mu ne nañ ko sécuriser. maintenant beneen bi mooy nous les alliés que nous dinañ ci ñëw. bokk ci liste bi am ci ay député nga xam ne ci liste Pastef la ñuy demee y a des gens. non waaw non on a on a compris a compris mais na man j'ai préféré man j'ai préféré xaw ma peut-être waaw non waaw demoon xëy na pour defar waaw su comprendre nañ sérieusement mais da nga nangu benn affaire sa mouvement nu mu tudd sa euh, mouvement nu mu tudd euh, jàpp si ànd jàpp si ànd ànd ànd dëggal jubal ànd ànd boo nekkoon ci biir liste passé boobu tur mouvement boobu amatul. waaw mais c'est pas gis nga man. Euh, loolu laa la bëgg xamal. mais ça n'empêche pas son existence. existence où. mais bien sûr Ousmane Sonko. mais day exister <laughs> parce que yow yaa ko jiite. tu es tout simple yow lii ay élection législative la yoo nga xam ne da cee bokk tout simplement. ma ne maintenant pour man. waaw loolu laa la pour man perso. na ne le député la député boobu ñii dañoo frustré. non comme man je me dis que c'est normal. ok même le fait que ñu génn pour man pour man garaawul. non mais si non c'est trop grave non attends attends qu'on se retrouve qu'on travaille ensemble parce que c'est des gens honnêtes. Hmm. c'est des gens compétents ku ci mel ni Charles Émile Ciss man son départ ça m'a fait mal. ancien directeur de la solde. non waaw mais mais nag mais il faut savoir quelque chose. yaa ngi dégg mais je me dis que il faut qu'on travaille ensemble. ñu ñëwaat te xam ne mbir mi dañ cee bokk. te loolu mooy dëgg. d'accord maintenant nag foo waay newoon. ba 2024. ba 2024 na nga fa toog. Ah, vraiment nag boo amee ful la am ah, fayda ah, na nga fa toog. d'accord c'est clair boo ma woowoon sax après di ma wax ay ñëw du ma ñëw. ok waaw d'accord man gëm-gëm boobu laa am. par éthique jërëjëf Alim jërëjëf Pathé. voilà c'est bon c'est lu mu wax dégg naa lu mu wax mais lu mu nangul ma rek fii quelques jour rek bu dee moom lu mu gëm éthique ak valeur Ousmane day dem mu dem. ok parce que Ousmane dafa bëgg a chef. man la voilà si man nga bokk. non c' est nga bokk waaw si waaw loolu lay bañ moom. jërëjëf Pathé jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax a baax. yéen di leen euh, bi nga bokk ci coalition Diomaye Président jiite mouvement jàpp ci ànd dëggal jubal euh, ñuy gërëm ñëpp ñu doon teewlu gërëm équipe technique bi yëpp. Euh, di leen jaajëfal surtout ci ni ngeen doxalee waxtaan bi y' a pas mm. eu de sax <laughs> werante bi tàngoon mais c'est normal Euh, ku nekk ci majorité présidentielle bi rendez-vous ëllëg incha allah ci beneen jotaay jërë ngeen jëf